billaahi yéen ngi dégg li xew ci réew mi li xew ci réew mi. ah kay ma nekk na de. dégg naa fan yii yëpp lañ ko kenn demul kenn ñëwul. waaw affaire moo yoon nag ndax affaire bi baax c'est normal. premier cas bi am na moom moo ko fi indi. mais d'accord naa ci nag mais benn ak. ne waa Kaolack. Italie nga fa gaañ. Italie lan. jàmm baax la wax de. yow na def trois jours maa ngi gàlle. waaw ah. Italie la man demaguma Italie. waaw doom day looy daw lan la. daw nañ nag. salaamaaleykum. mais gars yi lan ngeen di daw nii.